tëlulee nga ne ci yow ak ñi benn ngeen vous êtes ñi yow ak Idrissa Seck yow ak et cetera vous êtes tous pareils non mais pas pareil je vous le démontrer si vous me laissez faire mhm. donc 2007 noonu la yëf yi demee à la présidentielle on a des facteurs nekkal ñu député ñu jublu 2012 présidentielle avant ça nous avions poussé nous aux assises nationales moo leen wax diisoo sur les grands enjeux de l'industrialisation moi j'ai fait quatre ou cinq papiers pour les assises nationales sur la monnaie les mines l'esprit scientifique pour essayer justement d'avoir un consensus sur les politiques publiques parce que Sénégal mono am dictature éclairée comme le général Park en Corée du Sud mënuloo ko am ñoom Albert il peut vous expliquer pourquoi donc il faut nga am consensus un accord fondamental sur les réformes à faire du système mm-hmm. il nous le faut et on a beaucoup travaillé pour les assises pour ça man naa en tout cas quand on a signé la de gouvernance version euh, projet mën naa ko bind amoon maktaan boobu man la laaj ma bind ko donc vraiment pour man à partir de ce moment-là on avait un socle de réformes qu'on pouvait faire dans ce pays-là moo tax on n'a pas insisté pour aller à la présidence ñu seet suñu ñoo bàyyi leen Tanor ak ña ak Macky ak euh, kii ak euh, Moustapha ay mag la ñëw et cetera tout et tout bon finalement bon c'est et nous entre-temps Évidemment, quand Moussa Ndiaye est décédé, les autres ont eu peur, ils sont partis, donc on a essayé de réorganiser tout ça. Euh, voilà. Euh, ça a pris du temps. Voilà. Ouais, pris du temps. Et donc moi-même, voilà, je me suis là-dedans. Euh, j'ai quitté la Banque centrale. J'ai commencé donc à diriger le parti, donc à le réorganiser. C'est ça notre, notre histoire. Mm -hmm. Donc 2012, moi, Tardamounou, les Guinées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une partie de la direction qu'on avait construite ñoom daw dem seen yoon Macky Macky yóbbu leen. de tekki waaw. Macky yóbbu leen. après les élections. waaw quand il est devenu président xam nga gaañ rek la vie est dure dañoo bëgg a buuxante dugg ñi. ñeme ñemewuñu kii opposition. comme Birame dit souvent c'est pas facile. ah métti de. donc donc <laughs> on a vécu ça. métti de. ñu ngi ci biir opposition bi. Mm-hmm. jamono yooyu nekk nga PCA. P. PCA ban jamono nga nekkoon PCA. PC. PCA mosoo nekk PCA. PCA président du euh, conseil d'administration non mais j'étais conseiller d'administration c'est avant quand okay. en fonction publique okay. ah oui j'étais le président du conseil du Joola le Joola hmm. ah oui pendant cinq ans cinq ans oui xam naa bu histoire Joola moo tax bu Moustapha Niasse ak wàcc ci xuloo ma bien sûr je connais ça j'ai perdu 23 personnes de ma famille dans le naufrage bien avant le naufrage nga nekkoon. j'ai c'est moi qui ai écrit pour dire qu'il faut arrêter man maa ko président de la République par le premier ministre il faut arrêter. le Joola il faut arrêter le Joola il faut trouver un autre navire entre temps il faut le réparer faire le carénage et cetera. à ce moment-là j'étais j'étais au cabinet du premier ministre avec Moussa Magnas. donc voilà ah, j'étais PCA je connais l'administration hein. Mm -hmm. ouais, ouais, e l'école polytechnique. mais j'ai travaillé sept ans je connais l'administration et je connais les problèmes. d'accord léegi donc donc léegi. Mhm. bu ñu ñëwee deux mille dix neuf loolu nga bëgg a xam lu ñu def. Mhm. mais nous a amené le parrainage corrompu. le ah. parrainage il est corrompu xam ngeen ko. Mhm. le parrainage c'est en 2012. c'est en 2019. waaw bu 2019 la xam nga 2012 parrainé nañ ci loolu. moo wax 2019. alors mais ce qui s'est passé avant nous 2015. on a découvert du pétrole ici. découverte du pétrole suivez mes caisses tekki c'est à ce moment-là que Macky a dit ñi ay ñulaar ngeen amu fi débat économique moo tax ma ne ko yow mercredi bu nekk mardi mercredi bu nekk di nga di sama caisses tekki. mardi ou mercredi. soir mercredi conseil des ministres mu étudier ko ma jeudi mu tontu ma ma ñu ma tontu ay saaga rek la ñuy def. Mm-hmm. donc voilà la situation à partir de ce moment-là nous on a changé de tactique politique. moi je suis adepte de la guerre. yaa ngi may dégg. Hmm. de la guerre de mouvement la guerre de mouvement général paton xamuloo ko ne moo doon diriger cinquième armée américaine lors de la deuxième guerre mondiale okay. c'était mon idole man loolu rek laa doon def fu ma nekk xale Patton Yukov le de Stalingrad Paulus allemand et cetera la politique c'est la guerre Clausewitz moo ne la guerre c'est la politique avec des moyens violents. Donc la politique, ou c'est la préparation de la guerre, ou en tout cas c'est la guerre sous des formes non violentes. Ouais. La preuve, xoolal comment on nous a fait avec Moussa Ndiaye ñaata agression la am moom sama biir kër mais du ma dellu ginnaaw. Macky a décidé de réduire l'opposition à sa plus simple expression ak Mohamed Boun Dionne je connais très bien ñoo màggandoo xam naa Boun Dionne bu baax a baax a baax très bien xam naa papam xam naa yaayam. këram nañ doon dem du ñu ataayal yaa papam du ñu yar dan na ko yàlla yërëm mhm. parce que bàyyam ku baax la c'est un bon éducateur yaayam tamit moo ñu doon jox ay pastel ak yooyu ñu ñogo nag foofu donc on se connaît très bien ah côté de Macky Macky Tim di wax je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression je sais très bien ce que ça veut dire parce que en 2007 Boun Dionne qui fait partie peut-être de tes favoris des favoris de. du Birame. moom sànni bi mooy xeer bi quoi. non non non non non non nee na xeer bi nee na xeer bi ñëw na. non nee na xeer bi ñëw na nangu. non non non man les candidats de de Macky. et de Benno man loolu dama koy bàyyi ak ñoom. Oh, outsider ngay wax moi je parle de de. non après kii kii am na ay candidats. Mohamed Boudione après am na ay candidats. xam nga Mohamed liste ngeen yor liste. Maria xam nga Mohamed Boudione je le connais bien on a même avait un on avait un club qui s'appelait le club du futur. mais moi, moi, moi, là c'est là nag mon problème. Mhm. pourquoi vous ne vous retrouvez pas. on n'est pas d'accord c'est pas la peine xamante nañu lu mu bëgg ak lu mu bëggal Sénégal c'est pas pareil. vous n'êtes pas d'accord. non léegi pourquoi du ngeen boole seen xalaat yéen ñëpp. mais on se on se connaît on est ensemble depuis 30 ou 40 on n'est pas d'accord man fii ñoom nee naa la ñoom Paris la ñu bëgg a jëm. man je vais aller à Ourossogui ou à Goudomp c'est pas pareil. waaw ah, d'accord léegi ba tey 2019. donc. non avant ça il faut que tu saches qu'il veut réduire l'opposition à la sa puissance expression et ouais. c'est pas de la rigolade yow dégg nga français c'est une déclaration de guerre donc on s'est réorganisé mm-hmm. on s'est dit attention s'il veut le faire te xam naa Mohamed Dionne la mu bëgg wax xamante ni mm-hmm. 2007 il est venu me menacer chez moi pour que je sois pas candidat à la présidentielle mu ne Macky moo ko yónni Karim Wade moo ko ah oui si ça ça existe dans ce pays il Macky moo ko yónni Karim Wade loolu la wax nee ma waroo nekk candidat ma ne ko yéen moom réew bi waaw leen ko damay nekk candidat nag mu ne ma non wax wax wax il a essayé de me persuader sama xarit la. il bon je le lui permets parce qu'il vient chez moi quand il veut. Oui. bon maintenant il vient plus depuis qu'il a décidé d'être talibé de Macky Sall. mais <laughs> avant. il vient sama on s'est on a grandi. non honorable nag honorable honorable nag métti ah honorable. non xamante nañu. non Adama Fall nag rus nga rus nga rus nga rus nga. oui non mais ba mu commencé ne ma ne ma papaam laa rek moo. <laughs> donc xaaral ba terminé li après nga sànni say xeer. donc moom. loolu la ma waxoon donc je vous c'est pour vous dire comment j'ai pris au sérieux lu Macky wax. en en disant je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mmh. donc je me suis dit ñii dañuy waaj a mm. on change de tactique. on va essayer de de développer une grande coalition de l'opposition pour résister. Mmh. c'est ce qui a amené notre alliance avec le PDS. c'est ce qui a amené notre alliance avec Bokk Gis Gis. Mmh. on a créé Manko Wattu Sénégal. Mm-hmm. Gakou moo doon premier coordonnateur man may nekk deuxième coordonnateur fa la jógee on s'est dit ah il faut qu'on résiste parce que waa ji nee na il va liquider l'opposition effectivement yaakaar loolu la bëggoon bu pétrole ba gaz bi génnee mu ne aye ah, eh, moi je peux faire mon émirat gazier je vais rester ici Biya jusqu'à X années donc il fallait s'organiser pour empêcher ça et donc stratégiquement nous on a beaucoup travaillé à ça notre axe principal ces dix dernières années c'était pour empêcher que Macky Sall fasse un troisième d'accord parce que loolu mooy bunt buy permettre Sénégal mu yëkkatiku mu yëkkati Afrique de l'Ouest sacrifice yooyu jaral nañu ko pour l'avenir de l'Afrique pour l'avenir du Sénégal. ci nga ànd ak Idrissa Seck en 2019. 2019 ànduma ak Idrissa Seck il faut que ça il faut que ça soit clair. yaa ngi ci affiche la yaa ci photo. waaw xaaral ma expliquer la. waaw 2019 bu ñuy jubloo deux y a eu 2017 avant. 2017 nañu wax ne c'est même moi qui ai fait ce travail qui ai fait ce, ce document qu'il faut rassembler l'opposition et prendre l'Assemblée nationale à Macky on a même sorti un communiqué avec 10 ñoom bësu ñàkk ñoom ñoom ñu ngi yoon ci biir Fada mi ngi ci biir ñu taxawal suñu liste au législatif di ci liggéey à la dernière minute Gakou Khalifa Sall Idrissa Seck Barthélémy Diaz beddeeku beddeeku kan moo beddeeku. ñun suñu donal point de vue ñoom ñoo beddeeku dem ñoom soo leen dégloo leen leen ñu ñoo dem mais ça s'est passé comme ça on s'est séparé en 2017 pour les législatives. Ah, ci la ñu am ñaari liste yi. ñu am mhm. à deux jours des élections parce que Gakou s'était autoproclamé mandataire avec le soutien de Idrissa Seck. dem déclaré ji dem déclaré ji euh, la la pause foofu moom.